bandi di nirool lu war a jikkoom yow jàll man mi laay Angleterre yor yor sama téléphone ñu si appel bi di nëbbut te ñu ngi Angleterre am problème nii lañ def bu ñu nekkee Angleterre jàpp WhatsApp bi ku ne ñu naa la yónnee naa la yónnee mais dara levez-vous yow eh, eh eh bàyyil wax la da nga jóg li la dopo bu sa bopp méttee nga dem entrer hôpital ndax tey lu féex jërëjëf toog leen on commence Le tribunal du Ruru Tribunal a affaire à juger aujourd'hui. C'est l'affaire des rapporteurs de lutte et de hip rap. Il s'agit de Modou et Pape Sidi Fall. Oh <laughs> booy ndax da ngay waaj a nen. ngalaabaar mooy lan. booy booy xool leen séquence bi ngeen dem. man ay affaire yi sàcc man aw maa ngi affaire. ah da ngeen di bondé da ngeen di bondé merci bondé leen bondé leen silence eh martu baanam yow martu baanam lii daan lay jàllo eh yow yow jox ma eh ana martu bi dama lay rey de fekkee ma la rey da ngay fayu ko rek boo dee fayu eh eh yéen ñaar na bëgg naa ngeen yem seen place am déet ah damay commencé ci yow booy mbay Mamadou Mbaye Mamadou Mbaye Mamadou ko tuddee moom la ko baayam tuddee tuddee wuñ ma ko de ñoo xam eh, eh yow kenn laaju la yow booy je suis très content sax nga ñëw fi ndax sa papa temps yi maa ngi koy wër gisuma la comme doomam ñëw na ça fait l'occasion hmm. sa papa moom neexuma daanaka la tax boo ñëwee dama ciy kontaan ah yow nag Sidi Fall xaw ma yow naar nu mu ame droit ci ba fi def délit bu ñu commencé Modou Mbaye yow li ma bëgg nag on répond oui ou non. booy li la fi indee leen rek la en tant que reporter làmb ci réew mi mbër di la jox gaalaaj nga ko yóbbu ci cumukaay jàmbur di ko fa wisaare. non. eh eh ah eh eh eh eh, eh, eh booy eh eh booy eh Modou eh, kan moo moom noo mais président li nga wax man defuma ko. non du ma bàyyi mu sedd man nga waxante su nekkee noonu tey sa affaire bi noonu la. Eh, xoolal booy. li ma bëgg nag mooy seen loxo ndeyjoor boobu su ma paree da ko koy yëkkati yow moom. accusé bi la fi accusé c'est très facile. yow dèjà da ni rapport nga xaw ma. promoteur am làmbam jox la maquette am nga war ko wayal. wayoo indiwoo woo mu lay wax nga koy jaay impolitesse loolu lan la fi indee damay commencé nag ci yow Modou Mbaye lève la amee droite ak wax ma mbir mi nan la demee yow laay déglu maa yëkkati sama loxo ndeyjoor waaw waat lépp lu ma fi wax dëgg lay doon déglu waaye sa loxo yi duuf na de macha allah président kan moo ni kaar yow laay déglu affaire bi nii rek la demee nan rek la demee def demeewul lu dul ma nekk ma nekk nit koo xam damaa weex dunq boo weexee donc nga dugg ci siwo farine <laughs> wala siwo gom yaa xam am ma nekk di liggéey sama liggéey mbër ku ci nekk ma ñëw seet si la sa kër avant combat bi waaw ku ci nekk ma def ci yow liggéey boo xamante ne liggéey bu rafet la yow looy liggéey man reporter de lutte laa reporter yi lan damay reporter ay làmb en même temps animateur la waaye booy ordinaire président mbir bi nii la demee ma toog làmb jot ma ñëw stade dem ci benn mbër bi interroger ko mu wax ak man ma dem ci beneen mbër bi di wax ak moom mbër mi saaga ma wax ma ay wax yoo xamante ni man je peux pas mënuma sax comprendre man ko yow lan booy booy bi la mbër mi saaga noo def ah booy ma laaj ko lan la booy bi bi la mbër mi saaga noo def ñok soo da daw bi ma saaga dama arrière <laughs> da ngaa sa papa kenn bu si koo saaga continuer ah, <laughs> continuer ma ma laajte lan moo xew ñu ne dafa dañ maa jox ay xon. pour ma ñëw indi ko ci cumikaayam wis ko fa. da nga wis. man dama am jot boobu. waaw doy na. yaa wis wisoo. président man jot aw ma temps boobu. wis nga wala wisoo. man wisu damaa gis lu ma war a wis. sa laaw la ci. ah yow. Eh, booy. kaay kaay nootu waay. oh oh nootu waay. baalu sedd baalu sedd. baalu sedd waay Fall. baalu sedd affaire la. nootu waay nootu waay. nootu waay. nootu. président kaay. waaw dafa lu la neex. monsieur le président kooku nga war a lijjanti. non dafa na def lu ko neex. kooku nga war a lijjanti. yow laa déglu Serigne Fall. damay waat wala. damay waat. oui waat na. maa la ko ñaan ngir yàlla ngir. kay kay rek kay. s'il vous plaît booy waatal sa waat nga te nga bàyyi wuy ma. waatal waay monsieur Fall s'il vous plaît levez votre main droite et jurez. waaw maa ngi waat ne li may waaja wax yëpp dëgg la. voilà dëgg. mbir dafa am ñu ne dañ may yóbbu. bàyyi sa tee ñi ngay wokk ci saal bi dafay wàcc. waa d' accord. voilà dëgg. mbir dafa am ñu ne dañ ma yóbbu kër yoon. waaw li ko waral mooy waaj ji daf ma gis ne ma pour promotion wu làmb bi mu organisé diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux nañ ko ci defal single pour promotion wu événement bi. waaw. man du ma rappeur animateur la. waaw xam naa rappeur yëpp xam naa studio yi ma dem wëral ko rappeur yi nga xam ne. seen profil adéquat na par rapport ak li mu soxla ñu def single bi ba pare ñu def ci datu événement bi ak li nga xam ne moom mooy palmarès su ñaari mbër yi jaay combat bi pour mën ñi nga xam ne dañuy déglu rap te faraluñu di faral di fonk aaday réew mi à travers la lutte on les a fait aimer par le biais du rap waa ji mu ne ma buggul woon loolu dafa bëgg ñu tagg ko ci single bi ma ne ko mm. ñun lu hip hop notre vocation c'est pas de dire diw mooy sa baay wala diw mooy sa waay wala diw mooy sa baay bi waxee loolu waa ji ne bu ñu ko mënta defal loolu nañ ko delloo xaalisam te fekk nag woo naa rappeurs ku ci nekk ma fay la cachet bi ma la war a fay mhm. def naa li ma seqoon nag yow contrat de confiance bi ñu amoon man ak ñoom euh, réglé nañ ko normalement on a tout résolu mhm. en un temps record waa ji nag il a vu que ni xëy na moom ëpp doole mu ne daf koy yóbbu ci yoon ma ne ko bu ñu demee ci yoon it am na ay preuve yu palpable ci cheminement bi ñu jaar ba single bi waroon def promotion làmb ji pas sa promotion yow wala sa promotion papa wala sa promotion yaay eh. monsieur le président salaamaaleykum. Eh. boy Pape kan ngay waxal. Pape Abdou Fall lay làmb bi la wax. Fall lañ sant ñoom ñëpp. Pape organiser làmb ji yow wala Pape kan. non mais xam nga. mais mooy lan Pape kan nga wax laa ak yaayam. monsieur le président. waaw do you know what I'm talking about. cookina baaw taawul xaar waaw kay kay rasulullah cookina baaw taawul xaar monsieur le président non non non non non non non non Eh, yow monsieur le président wala boog. wala boog kay. wala wala boog mais. waaw wala boog jàll ici dina neex ah booy di engrais parce que yaa fi indi ay woyu yow daal ay woyu rek yow ay woyu rek ay sàcc ay doomi géwël ay woyu ay ay ay rasamaan ay reporter làmb ay ay doxaankat rek yow tu as la parole. yeah Saab nigga good afternoon sir. eh booy sa yooyu tey ko dégg booy doxaanante ci WhatsApp sama nekk. je sais pas ah, rek. je vous salue j'ai dit good afternoon. booy waxat man day wax olof wala nga wax leneen. je m'excuse monsieur le président maître Kabo maître le procureur je vous salue. on vous euh, le président mais kii di Pape di Gaye. daf mais lan moo tax moom muy dem di tagg maamu jàmbur mais promoteur bi da ko fay pour mu defal ko maquette il a fait la maquette li ñu ci waroon wax lépp wax na ko ci. mais pour quelle raison ñu indi ko fii naan dañ koy juger mais il n'est pas là pour di tagg ay maamu jàmbur ñoom seen vocation du loolu ñi c'est des hip hopeurs. d'accord. kii il a révolutionné le mouvement hip hop sénégalais. dafa am estime ci biir réew mi. loolu noo xam ñu koy déglu man toppatoo ko. non dama lay wax rek pour nga dégg. révolutionné tamit dama lay wax rek. waxal li ma laaj tey nag laay xam ba xam tribunal bi dañ fi àtte yoon wala duñ fi àtte yoon tey laa koy xam. su ma jógee ci euh, Pape Sidi Gueye. monsieur le président maa la wax li mais du mbay monsieur le président yaa ngi seetaan booy. soxlawu ma ko seetaan. Modou Mbaye na nooy. soxlawu ma mais kii paa fi nekkoon moom moo leen fi jëlee. moo xam ndax liggéeyam bu naaj. def na lu bon moo xam. lui aussi il a la lutte. yaa ngi waayaat <laughs> le président. yaa ngay wayaan booy bi de. je suis pas pour wayaan. <laughs> ah ah loo ko tàggee loo koy tàggee loo koy tàggee loo koy bu laajuma la li may xam. loo koy tàggee ba tey ba say li na ko wax ñuy bëree. ba tey xanaa ma ko ki ki ki papaam bi reporté sama new ji. est-ce que je peux continuer. continuer voilà. Euh, je demande moom ban intérêt la am ban intérêt di ñëw ci cumikaayu jàmbur. objection objection dégradé <laughs> ban intérêt la am di ñëw ci cumikaayu jàmbur naan dafay euh, di wis ay ay ay saafara. monsieur le président wax day logique wax day logique. ñii dañuy def seen job am nañ droit dem ci euh, cumikaayu mbër bu nekk interroger ko parce que loolu moo tax ñu teg leen fii mbëri nañ bàyyi li ñuy def defoon nañ ko fi papaam jiñoon nañ ko fi genre affaire bu mel nii jiñoon nañ ko fi tey léegi moom lañ ko jiiñ gis nga nit da ngay gëm yàlla. boo demee bëri ñu daan la da ngay xam ni yàlla moo ko waral. mais objection. objection récupéré yaa ngi comprendre récupéré. may ma ma terminer. eh booy doo doo Kaale eh. booy. allez. très bien. aw sa xamoon naa di nga dank xamoon naa dank dank dank fanaana bi ma seen. aw sa mais. booy wax sa. yaa la parole. merci monsieur le président eh, merci dotam monsieur le procureur maa ngi lay nuyu di nuyu greffier bi buy ma yow eh maître Amar nuyu eh. naa la xanaa bi nga def examen kenn wax loowu la mais da nga dotom merci waxal <laughs> président mais Modou Mbaye yow ak Pape Sidi la yéen ñaar dafa mel ni yéen yéen a moom Sénégal vraiment mais balaa maa ñëw ci Modou damay ñëw si Pape Seydou tuuti moom li mu fi wax dara def fi yenul maanaa naan daf ma ne naa ko woyal ba ma jël xaalis bi la samay xarit. mais fu séddale xaalis am am kay contrat lañ fa signé. vraiment. lu tey ñoom avant ñoo signé contrat bi ñu ne waa ji ak lii ak lii ak lii. loolu lépp itam lu jar leeral la te dama ci am ay firnde leer nañ Sidi Fall mii Pape Sidi mii bi leen waa ji joxee avancé inte 15 lañ dem. benn appartement bu fa nekk ku ñu wax Moodu Saara fa nekk at am fa ngeen lekkee xaalis bi. Eh, eh, invité fa ay jigéen am nga des informations next xam nga bu baax li ma la xam nga bu baax li ma la wax. invité fa ay jigéen ca kaay def lu leen neex. <laughs> xam na ko yow may ma rek. Eh, yow may ma rek yow. booy ci sa morom nag bi de. mais président wax na dëgg booy bi jaar na appartement. jaar na li ñu waxatee ngi nii foofu la ñu eenee. booy wax leen lu leen neex. wax leen su ma jógee si Pape bi ki nga xam ne mooy Moodu mbal yow làmb ji dañ nga see war a nekk pour defar mais pas pour yàq. vraiment. yow sa papa lu baax la liggéey si réew mi sa yaay mbaaya dafa sëy ba mooy loolu nga nar a yàq lim liggéey yëpp te monsieur le président fi bi ma ci am mooy. Mhm. moom li tax mu jël cumbukaay yi jël ay gàllaaj di ko yëpp si cumbukaay jàmbur. Mhm. benn xaritu papa Moussa Thiam. Eh. moo ne mbër bi neexu ko. Ah, mu dijjante ay gàllaajam jox ko ko ne ko boo demee nga sotti ko ci beneen parti bi. Eh. yaa ko def wala def xam nga Moussa Thiam bu baax xaritu papa xam nga Moussa nekk aéroport sa xaritu papa la liggéey rek dem na France sëriñ tu fa ba sonn léegi mu ngi Sénégal monsieur le président ñaan ñi daal li war si ñoom xam nga ko euh, li ma lay ñaan jërëjëf jërëjëf nit kenn ko topp ba sës ndax nii nga ko toppee nii gàcce rey na ko hmm. bii përëb moom tere clair yii përëb moom ca tere clair amatul leen lu ngeen wax bu na am ras ah, bu na am <laughs> seen loxo yi wàcce leen laajuma leen tous bu daal président kii dafa jaar appartement bay eh, eh, boobu dëkk bi laajuma la kii dafa ëmb yàq eh, dafa ëmb yàq ko la xam nga dèjà ñoom ñu a dugal mais pas man yow may nu waay toogal waay yow di porte may nu koy porte dama wuti beneen jëkkër soo bañee ku la jiñ dara ah may nu jàmm tiens la parole yow merci maître Amar maître Diallo monsieur le président met kabo mais xam nga lu ma met ci Sénégal kenn du dem dañuy téye kuy dem boo nekk ci yoon nekk xale foog am ñu lay jéem a faagaagal ce que je vais vous dire monsieur le président dama ci am certitude am ci lu leer y a un lutteur au nom de jarade 2 il était présent bi ñuy taqal Modou Mbaye Diarra 2 mbër la nee na ma ci lu leer ak enregistrement li ñu wax ci Modou Mbaye dara amul comment un jeune comme kii qui a révolutionné la lutte sénégalaise fekk fi ay mag def raw li ñuy def topp ci tànk bàyyam ne olof naan doom ja bàyyi ja kii a tax il fait un travail extraordinaire ci biir lamb ji il fait des émissions extraordinaires ci lamb ji nañ ko ba mu liggéey liggéeyam ban intérêt la am di suul saafara ci ci ci ay cumbukaay jàmbur loolu amul benn bi mooy Pape Sidi Fall kii fierté la fierté d'un pays la mais avant muy nekk fierté du Sénégal mais fierté de Sine Saloum Kaolack gëm dëkk la il a commencé ci école yi jaar rajo ba tey mu ñëw ci tele bii mu nekk bu doon caaxaankat du fa nekk kii di Pape Abdou Fall lan la bëgg ku def singalam pour combat le 31 juillet diggante Gris Bordeaux ak Modou Modou Lo mais neewul ko pour mu tagg ko def na ko defal promotion lamb gi kon ñoom promotion lamb gi la ñu def déglu nga single bi. déglu naa ko amul fenn foo xam ne mais ñi pour lan tagg nit. marqué ay single de. pour lan ñuy tagg amuñ droit tagg le contrat a été bien respecté le contrat mooy nañ def promotion lamb gi promotion lamb gi def na ko mat na on n'a rien à à lu koy reprocher amul. vraiment Pape Abdou Fall. su bëggee le jour ji mooy le 31 juillet combat bi baax ñii def nañ li ci war kon c'est moom kay su doon nit day neexalaat ñii monsieur le président ñii li ma bëgg ci moom mooy qu'il soit acquitté relâché leen purement et simplement merci beaucoup. <coughs> loolu nga bëgg bëgguma ko. bëgguma ko waaye nga ba noppi. li nga bëgg bëgguma ko. du man maa acquitté waate acquitté wu ma ah daanu nga. Ah. waaw. <laughs> kooku yow sa diggante ak sa borom. voilà maa acquitté acquitté wu ma. nix laa acquitté wul booy yi dañoo réew. waaw booy bi fii la taxaw léegi dama la ay angale xaw may naar nga toog bi nga ne. acquitté waaw léegi léegi comme dara ci Pape Abdou Fall man maa koy acquitté sama acquitté bopp moo ma saaga nday dafa tout le monde ñaari booy ñoo ma saaga nday yéen a ngi koy dégg ñoo ma saaga. man dégguma ko ko dégg seen xel. ko dégg sama xel ñoo ma saaga. ma saaga affaire Pape Abdou Fall comme tu as des preuves bii moom sama preuve bopp la booy yee ma saaga te mën naa ko fay sama bopp waaw xanaa neex. xanaa waaw. that's not right man. that's not right nix. booy kaa leen yéen loo bëgg a def nii. sa yoon nekku ci. monsieur le président. ab ab sa gaañ la de. xoolal ab waa yow. monsieur le président s'il vous plaît. s'il vous plaît nix. waaw comme c'est comme comme ñoom comme defuñu dara ci ci yoon. yaa ngi ko jël ñoom ay lapataar. gaa bi waaye. gaa mais bu soxla gaa bu soxla procureur. non non lii amul bu soxla procureur mais lii mais mais mais ça ça ça c'est pas normal. mais service de campagne dañ ko war a woo mu changé ñu garde yi. tax mu yàpp ku ñu yàpp yaa mu yàpp ñu président ku ñu yàpp tax mu yàpp gis nga. Eh, eh, eh, Snapchat si net bi nga jëm. Snapchat. waaye man ngay Snapchat waaye man ngay Snapchat la changé la ma yéen. dañ di jënd si si kabaar bu ñu teg a teg benn <laughs> njëriñ